jaar sumbas ay jant lay firi wala putóor yi tam bu doon benn weer badar lay waaye bu ñu putóor ay weer la wax yàlla ma ay jant muy njabootam ji wala putóor yi ma taal bi yoo xam ne nii ni ay weer mooy ñi teel a jébbalu te teel koo jegeñ wa bil masaabihim ak ñi nga xam ne nii dañoo yéex a te bokk gëm ko attaque bu dóor yi ba ñooñee li tax ñu doon waxtaane soxna jaare itam da ciy dellu si ci baat yi nga xam ne Sëriñ Tuuba moo ko wax sëriñ bi dafa wax ne bu fekkee ne ngay waxtaane xisaayi gaa yu baax yi ñi am am xel dañ ciy jëriñoo moo tax tey du ñu toog fii di waxtaane soxna jaara ngir ñi nga xam ne am na mu am xel di dund bu baax ci seen am xel mën a jëriñoo waxtaanu soxna jaara wi ba man cee defaroo laqad kaana fii xasatin ibratun li ulil albab nit yi xisaay gaay yu baax yi ñeel na ñi nga xam ne dañoo am xel yu rafet yàlla nag buy wax toujours saa boo xam ne dafa ko jox yaa ulil albab lay wax yéen borom xel yi ku ñàkkoo xel yéen nga jox sa borom muy wax loo xam ne nii soxna jaara amu ko woon te bëggul benn taal bi am ko moom mooy kiñaan kiñaan moomu moo taxam keroog bi iblis dikkee ca Firawna di waxtaan ak moom Firawna yey ko ci benn baat def ko ne yow Firawna ak man iblis ñun ñaar ndax bu yàlla bu nu wëree asamaan ah, ak suuf ba mu daj dinañ ci gis pour mu gën a ko firaw na ne teg ba mu yàgg mën a ko axa ah kay dinañ gis pour gën a ko mu ne ko déet ndax maa ngi yow de bu nu fabal nu baax le rey aw yoo mbuus ko fab suñu baax boogee dugal ko ñu mbuusam yoo ba du ko fee du ko fee xam nga kon xanaa yaakaar naa ne amul dara ci lu baax ñaari nit boole baax def ko ci mbuusam yoo fees ko mu ne ko waaye li nu bon bon bon am na ku nu gën a ku nu gën a gën a bon iblis yow mboolem gaa yi la topp sa bànneex bi nga leen di jox ñu ngi koy bànneexoo mu ne ah mu ne ko kon kay li nga yor ñaan ci ku ñëw fekk la ci nga jox ko ci ba doy mu ne ah ne ko man tamit ñaanuma ndax mboolem ku nangu ne am naa rab bu ma may wax maay seen yàlla ji gën a kawe nangu rek ma dugal ci sama ajana yi di la bégal guddeeg bëccëg mu ne mu ne ko waaw mu ne ko waaye nag ak iñaan moom mu ne mu ne ko bu toogee añ bëgg koo añee waaye nuyoo ko ab reer la koy jëmale bu reer ñëwee gan nuyoo ak ndékki la koy jëmale ba yëg ba yëg yi nag ñu dem tuuri du ko jëriñoo ak iñaan la ko nee bu amee mbubb mu rafet war koo sol ci biir bu génnee gis ku sol tiise bu niroo boppam mu summi ko daal di ne su ma demee ñëwee damaa réeróo ko yàlla na ko sooy nagaa dem waaye bu mu bees nga ko sol mukk ndax am na fu ñu doon moom wala fi ngeen niroo leen boobu ba pare ci ñaanam tax boo ñëwee ngeen bokk toog lan mu jotaay mën naa la sa tiisi biir dafa xaw a niroo sa bopp waaye xam nga bu gën a foor kenn la ñëwoon nga xam ne dafa gàtt sa ñëw bi daa gàtt mbaa mbaa mu jot mu ne day buub su gàttal boo ci day ci day a baax faaw mu mën moom la si tey léegi nag sëñ Tuubaa daal di ne alxasadu yàqulu kamaa ndax iñaan dafay lu bon la ak alxasadu yàqulu laa ni nga xam ne nit ñi noonu la sawara di def matt sa jarum matt du mu réy réy réy réy te daf benn xaw rek day fab di ca def rek bu yàggee day jékki-jékki ñëpp commencé di la ci ñaan di jëf jëf ju baax kon yàlla ci yàlla musal lan a yëkkati gànnaay ci ñoom ba doonoon ku fegu koo xam ne nii mosu ñoo mën a dal ci kaw benn yoon bañ koo waxee lu tuuti la ci tontu loo xam ne nii ci biir alxuraan la nekk daf leen ne téléphone bi nga kii yoxal sa doom ne ko waaye yow lan moo nga nekk ak tubaab yi diiru juróom-ñetti at yi nga nekk ak ñoom ko ci yow lu ko ci yow mu ne nga def ko ci nga def ko ci ñu def ko ci yow te nga mucc te fexe yooyee lan moo tax xam nga sëñ Tuubaa amul kii ñaar mos na ne dafa war ndax mu ne leen la ma nekk nag bi la kii yoxal sa rafetal rafetal sama jëf doom laa nekk ak sama digganteeg doom mbooleem lu ñuy def rek mën na sax ci jëf ju rafet xam nga kon sax ci lu baax dana tax sax doom su xëyee di la fexeel guddee bëccëg itam yow saa bu xëyee gis la nga mel ni luy gën a yëg di gën a dem kaw ndax sax nga nga sax ci lu baax te mu euh, mi ngi mel ni yow mi nga xam fekk buy ci àll bi nga ji te dagg at mu jot laa wut sa boj ci sewoo nga yaakaar ne guy nga moom bu déwénee boo dee si waatee moo lay mayaat tëgg loo dem mu nit ak bojjiroo dafa mu toogal ko yëg kon sax ci lu am loo may jëriñ mooy li nga xam ne dañ noonu dañ ko ëndaale woon ngir ñun taal bi ñu di ko demaale ndax dama ànd ak koo xam ne nii wexaaya la ci bépp fan Sëriñ Tuubaa du tooñ du fay kon ñun ñooñu ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal te dañuy wax ne bis bu ne Sëriñ Tuubaa dafa am mu teg taalibe yi dañ ko war a xam te Sëriñ Tuubaa teg taalibe yi taalibe yi dañ ko war a xam bu baax a baax a baax a baax ndax fu nekk da leen faa dugal ci boppam ban jaxasoo moom lool ndax bari na fu bari ku ñu tudd njabootam boppam bi sax ba leen jàmmale njaboot yi mooy taalibe yi war na seet sama wax dëgg ndax ñu wax lii sama deret ak deret sama njëriñ waxaw laa Touba wax na ni benn doomam ju nekk def na ci moom fukki weer ak ñaar te taalibe bi loo fi yéen ak maqaamam lu mu rëy rëy rëy rëy Sëriñ Touba ne la la ma def ci moom julli ñaari rakkaam ko gën a jafe waaw ngeen seet nag diggante ñaari rakka ni mu gàttee ak fukki weer ak ñaar kon doomi Sëriñ Touba bu ko kenn nan nan naka tegg leneen suñ bëggee mucc ci doomi Sëriñ Touba yi dëgg-dëgg kuñ ci tudd rek nan daal ne moom rek ay moom boo demal ci Serigne Saliou da ngay defee ne moom rek mooy doon suñu bopp boo demee si ñëpp laaj booy waxee baax yi da nga naa moom rek da nga naa moom rek nga dem si ñëpp doxalee da nga naa defee ne moom rek nga dem si Serigne Fallou nga am ñi nga xam ne nii comme ni ma leen tuddal ci Serigne Ibrahima Mbacke pour la waxee fa nga xam ne nii fa la jaar ak atam yu ñuy wéy ci 42 ans yi da ngay defee ne Serigne Ibrahima Mbacke rek li Serigne Touba maanaam. nekkee Serigne Touba mooy bëj Serigne Touba rek ay Serigne Touba soxna jaara rek mooy soxna jaara ndax mboolem li nga xam ne nii moom la soxna jaara làmboo ci ay jikko ak yàlla ak xam alquran ak dëddu bi àdduna a xam ne nii boo ko xoolee defe ne comme soixante-dix ans la defe 33 ans ci taarix li nga xam ne nii nettali la boo xam ne nii Serigne bi ko nettali nit ñu denc ko ba ginnaaw bi fi jógee ñu door di ko wax ne bi mu bëggee ñëw jamono daf doon wër ci jamono ji ku mën a ku ko mën a àttan mën a nekk ndeyam nee na booba soxna Jaara ngi toll ci juróom-ñaari at jëm juróom-ñetti at way juróom ci ko taxan lool mu dugg ci xur bi di tax nee na mu yëg maan ko nekk te moom ak leer bi moo àndal ak gëddu àdduna nee na foofa laa ko ne yow xor seet ko fa diyanteeg moom ne ko damaa bëgg a ñëw jamono waaye bu ma fi dee bu ma fi dee bu ma fi dee ñëw yaay sama yaay doon sama nga xamee ni nii ci nin koy tuddee ci suñuy nopp mu war a dem kër mu wax ne su fekkoon ne yonent mu di ci jamono ñëwul man maa wax ne dinaa fa di rob yonent ginnaawam la door a feeñ loolu itam ñii kenn ku nekk war na koo jàngal bu baax a baax ndax ku mel nii benn bu tabu gàtt sori sëñ ma dem mu baax ma xam ne dafa fees del ak xam-xam dañuy wax ne tey xam ba nag sëñ moom dem daj na lu caabi xam koo xam ne sëñ Mor Mbaye si seetaan na la laaj ay masal yaakaar naa ne xam-xam sax na ko dafa am benn bisu àjjuma mu julli ñaari àjjuma ba pare dem ci sëñ euh, Mor Mbaye si lañu toog ba di waxtaan sëñ Mor Mbaye di ko di waxtaan moom yaa mu ne ko man dafa am loo xam ne dama la ko bëgg a laaj su fekkee dem naa ci digal mu ne dënd ba mu yàgg sax mu ne ko am nga ci digal mu ne ko sa xam-xam bu bari bii ndax. ngàmbe ndax mën nga koo doom joo jur wala doom jur la jox nga di ko jàngal mu ne dënn boobu yàgg su mu ne ko ah, déedéet nag loolu ne moom mënoo ko ndax Sëriñ Tuubaa ko def ci man te man bu Tuubaa booba baatinam bi feex na dell ba ak jamono waaye saa yéen si feeñewul ci la daan wër di dem ci dëkk yi ba mu dem ba mu dugg ko bi toog di waxtaan nee na Sëriñ Tuubaa ci boppam yëkkati yére ya mu solal mu xaw a fagg mu def ko sama tey nekkoon ma ko laabal xam nga ñoom wax lim yooyu ñoom rek ñoo ko defee tey ñu bari tey boo nee nangam dafa xaw a fagg dana leen jaaxal tey boo ko waxee comme ni ma ko waxee ñu bari seen xel dina ci dem ne lu xaw a tilim la waaye ñoom daa wax tilim ndax tilim du nekk ci ay yére du nekk ci kaw der tilim ci xol lay nekk tilim fa muy nekk ab saabu du ko def moo tax mu ne ko yére yi xaw a fagg mu jox ko way juru soxna way juru sëñ mbët dem ne ko na ko ko laabalal nee na soxna si bi mu ko fóotee bi mu ko laabalee ba noppi dem ba jël fóotin nga ba kóoyu ko ba ñuy juróom fóotin nga gën a moom Moodu Mbàkke mii nii mu baaxee fóotitam yére nii war na koo mën a jaxase fóotitu ñeneen ñi ah déedéet daal di wax ak wóomam ba mu wóor mu sotti ko fóotin ma bàyyi ko ba moom ñett mu maasale waat yére ya weeru ko te biti la ko weer te duy néeg ba yor di ko upp di ko upp di ko upp ba yére woo mu di koy fabaat fekk sox sëriñ bi fa mu di waxtaan ak way juru sëñ ma dem mu daal di koy yëkkati yére daal di koy jox sëriñ bi daal di koy sol ci kawam di taxañ yére ya mu jiite la di ko taxañ ba fummi ko daal di di ko soxla ci yére yi ko sol ba fekk ngay mucc ci li nga àndal

sol na mbubbam Serigne Touba ci kaw yaramam tàkkoo tam moom da ko def ko na sol te bul moom ba fee nga it mu julli nga yor soxna di sol yére yi di ko sol di ko sol di ko sol ba am gan nee na keroog ba mu juddoo sama baay daal di njëkk ci man di ne Mouhamadou Rasulullah nee na ba mu ñëwee yooyu góor la mu ne Mouhamadou Rasulullah mooy sëñ ma dem nee na ko sama xam-xam bu bari bii mu ne mu ne ko foofee laa ko jëli mu ne ah mu ne ko sama xam-xam bu bëri bii foofu laa ko jëlee ak barke ba nekk ci kër gi ak daal ne ko ba ma amee ñaar fukki ko ci laa fekk ñaari góor yàlla yoo xam ne nii Sénégal ku leen fi rawoon jafe muy Alaaji Maalik ak sëñ Mbàkke Bousso mu ne ah mu ne ko te dama leen daan jàng mu ne ko ah Alaaji Maalik ak sëñ Mbàkke Bousso loolu leen doon jàngale mu ne ko démb ma di leen tëralal bind waaye da daan bëgg xam-xam lool te am ñëw di leen laaj laaj bu leen mas a laaj jaaxal leen laaj boobee la ñuy bind yónnee ma ko mën a dem ci sama jaar fukki at nee na ma bindwaat ko kon na mu demee ak tontu la ba mu leer nañ ma jox leen ko te du ma mas a xam téere ba ma leen di tontoo ne du ma mas a gis bu ba du ma ko mas a gis kër bu njëkk ba du ma mas a gis kër mujj ba maanaam téere ba ma leen di tontu sama bëgg ci mosuma ne téere bii ci laa leen di toll waaye nag bu laaj bu ñëwee rek téere la jox man ma daal di ma daal di muy El Hadj Malick si ak sëñ Mbacke Bousso mi nga xam ne mi ngi te sëñ El Hadj Malick nee su ma xamutoon dara ci te ci sëñ Mbacke Bousso mu doon ak dong tax na Serigne Touba doy daw. loolu El Hadj Malick ko seere Serigne Touba ne xaw ma su ma de. ak bokk gi mu bokk ak man ma yem ci sëñ Mbacke Bousso doomu mu ne taalibe sëñ Touba la sëñ Touba lay doon daal di nekkoon nag waaye dinaa la xamal yépp yoo xam ne du tax a jariñ sëriñ bi mu ne baax ah, loo dem euh, dem suñ ko mënee xam baax na ci loolu mu ne ko rafet alxuraan du rafetal juddu du maye dara ci sëriñ bari xam-xam du maye dara ci sëriñ kon lan mooy maye dara ci sëriñ alxuraan ju rafet du ca maye ndax waaye jur sëñ Mor Bay jiite ba muy jébbalu sëriñ ba muy gor Touba la fa dem jébbaluwaale ca sëriñ Touba sëñ koy laaj ko ndax foo tolloo kii rek sama borom bi mu ne ko dama koo mokkal ba defe ne ful man maa la ko maa la ko daal mu ne ko ah mu ne waaw mu ne ko waaw kon baax na ñu toog ba reer ba noppi fiñ bi toog ci lu mel ni tóoj ne ko dama bëgg ngi nga waxal ma téere sama borom bi waaye ñun sëñ Mor Mbaye jiite di waaxu di wër sëñ Tuuba di jàng alxuraan di jàng alxuraan di jàng alxuraan ba wàcc da leen ko jël alif lam mim sàll jël ci tab ba mel ne jënd ci wàllas mu ne ko téere bi de ñëwal na fi boppam ne ma woo na ko mu rafet na loolu dara naa jiwu ci waaye da ngaa mokkal alxuraan waaye moomoo alxuraan ana mooy defar téere sa borom bi mu ne ko man ci alxuraan lay dund mu ne ko man ngay dund ci alxuraan mu ne ko damay bind ma noppee danaa ko wecc ko ci ñetti dërëm di ci dund balaa ñetti dërëm yaa jeex mu bindaat beneen kaamil wecci ko waat ko ñetti dërëm ci dund man alxuraan lay dundee xam naa kooku dundam si yàlla na wax dëgg yàlla mu ne ko waaye nag damaa bëgg nag doole nga daan def ci alxuraan bi ko wecci ko damaa bëgg nga defal ma ci euh, ab kaamil mu dem bind ab kaamil daal di koy indi koo ne xam ne Serigne Touba moom alxuraan bu masaan ñëw ci moom boo ko bindee jox da koy peete dafa am poids alxuraan moom ko moom dafa am bu ko nee na ci kaamil bi lu mu doon lu ca manqué da koy xam ndax dégg ngeen fi ñëpp laaj la moo xam ban ko bindalee kaamil ba yëg ko ba pare tam kasaratum di desootu bàqara bi fàtte ko fàtte ko si da dong ko téyee daf ko ne sa kaamil bi de wow na boobu waaye ba pare tam kasaratum di desootu bàqara moom nga fàttee si sidda sidda nga xam ne da ngay mu ne ko si dajoo ñaata maa ngi wala yéen asim nga ko sa ñëpp laat waxee ne wala yéen asim nga ko ubbee loo dal mu téye kaamil ba téye ko ci loxo yi ko daal di ne ko ah kaamil bi nee na ma wér na benn dara dalul bu ma santee alquran bu ne nga da ko alquran ji na ma na dara waaye dama bëgg tey jii mu ne mu ne ko da ko la ko daan weccee du ñetti dërëm la mu ne mu ne ko sama euh, ana fere yi kan moo la ci gën a jege moom sëñ Tuubaa daan wax sama taal bi fere yi la daan wax mu ne ko ba ah, ma dëkkee de Masamba Diop sax moom Touba nii ñu ko def ne ko kaamil boobu laa bëgg nga tëralal ma ko mu daal di dem ubbiru gaanam génne ci juróomi téeméeri te doo ci jamono juróomi téeméeri nguur daal di koy jox way jur sëñ Mor Mbaye Cissé walbatiku daal di ne ko euh, mu bég lool mu daal di yëkkati waat kaamil ba daal di ne ma am sa kaamil sëñ Touba damaa wax ne ma naa ko beral teral naa kaamil sa kaamil la ngi doon man alxuraan ji li muy rëy rëy ak li muy bari mbindum Sëñ Tuubaa bi ñu ma jox ne mën ko teral dong laa ko teral kon nga xam ne fekk na rafet alxuraan mooy maye dara ci sëriñ bi kooka du fa dem waaye xam-xam bu bari itam moo tax gaa yu bari mënunoo jote jëriñu ci sëriñ bi ndax loo ma seeti aaya tàngam ma seeti lëwal ma seeti saani ma ma seeti xalil ma buñ ko ci gisul rek daal dina loolu ba tax jotul mu Sëriñ Tuuba beneen bi mooy juddu bu rëy ñenn ñi juddu bu ñu am ñu naa leen diw sàngamay sa maam diw sàngamay sa tax na defe ne waratu ñoo sukk fi kenn di ko raamal di fa sàkku dara ku rëy bay na moom ne ku ndeyam baa baayam bu baax nu sew tey na Seex Bamba ngir moo fi xotti baax andal waay. maanaam ñett yooyu moom leer na ne kon du maye dara ci sëriñ kon leer na nañ la ca def mooy kon naka la ñu war a jëriñoo sëriñ mu ne ba waaw yooyu wax lépp day dem su fekkee ne lu tax a jëriñu sëriñ kon lan mooy tax a jëriñu sëriñ mu ne ko jëriñoo sëriñ Tuubaa nag mu ne am na ko wéesul dara la mooy wéy jëf la jëriñoo sëriñ Tuubaa wéesu dara lu weesu roy yi ba faal defal nga def bàyyi nga bàyyi teg ko fa ko yàlla teg bëgg gëm ak jëfe ndax ne ko su fekkee wax doomu la mu ne amoon ne ko dara du taxaw waaye foo gis ñuy nit li jëfa foo gis njëriñ nekk fa jëfa tax waaye yow jëfe mu ne amoon ne ko taxul dara dara ci Sëriñ Tuubaa dafa mooy Baay Ibra Faal daal di ne ko dinaa la xamal leen mu naa ma ne ko mbooloo musul mënuma fa teew di ay taalibe Sëriñ Tuubaa te Seex Ibra nekk ko Sëriñ Tuubaa dinañu wax ci waxin woo xam ne dina xam ne dinañu xam ne Seex Ibra du suñu borom dinañu ko wax ba tàyyi ci ne Seex Ibra du suñu borom mu naa mu ne ko dinaa la ci nettali benn xisa Sëriñ Tuubaa dafa mas a toog am di waxtaan ak moom am benn taalibe bi boo xam ne nii daf koo mas ni ñaan mel mbubb maanaam mbubbam barkeel topp ko sëñ bi topp sëñ bi ba bés bi toog nga xam ne yu weex ëpp ci lim daan sol waaye du mas bind bu demee ba bi nga war a am ci da koy rëdd ci fomte ko yére yi ngir ormal nee na yére yi noonee mu melal ne taalibe bi boobee topp ca sëriñ bi daal ne ko barkeelu boo ko bëgg boo ko bëggee rek fay wutal dara ne la taalibe boobee daal di ne bëri daw dugg ca marché njariñ wut fa ay yére daw ca kanam mu ñawal ko ba mel nam daan mel mu dikk daal di koy indi sëriñ bi ne na ba mu e-, xam ne taalibe ko am na mu ko ne jàpp sëriñ bi sëriñ bi dafa koo daal di téye na muy na muy nangu alquran nee na ba mu ko yëkkatee daal di ne ko nii daal di ne sëñ sëñ Massamba Diop Sarr la wala sëñ Mamadou Lamine Diop Daga xam ne ci ñaar ñaar yooyu ku ci wax waaye yaakaar naa sëñ Massamba Diop Sarr la ndax moom ku teel na taxaw sëñ bi la kañ la waxtaan yu xëy fii waaye beneen yoon sëñ na buñ demee ba yegg ci bii dinañ ci indi yeneen waxtaan mu daal di ne ko eh, waaw ndax maanaam. Eh, di mol yi suñ ko doon weccee ko buñ ko doon xayma ñaata lay war a doon nee na fan toog ñoom di xalaat di wax maanaam ñaata la war a na doon ci di ci lim bi Cheikh Ibrahima daal di ne bëri tege naa ne ko ba mu ko laalawul ca ba mu ko laalawul waaye bi mu ko laalee amul jë kenn mënatu ko jël nee na loolu booba Ibra Cheikh Mamadou Lamine Diop ñaara mi nii yoo xam ne nii ñaar lañ yoo xam ne nii kenn nekk am nga kóoluteef bu mat sëkk ci Serigne Touba ndax sëñ Massamba Diop Samb moo daan tiim mbokku Serigne Touba bi di ko leer di ko wan. ba bis yàlla mas na ko teelaat bu Serigne bi wan loo ko ko ci suba gi jot mu ñëw di siyaare sëñ bi ndax sëñ bi ko mayee ci boppam nekk fu ma nekk mën nga ma faa fekk loolu ak yeneen yu ko war a Serigne Touba nekk ci biir Ndiarème. egg ci ne la fu ma nekk man nga ma fa fekk te booba muy ndaw moo tax ndaw du ak mag du dara ci yoonu si parce que bi rek fi toujours maa ngeen koy wax ngeen defal damay jaaxal waaye wallahi yow asi jàpp ma sama bopp mu mag lu dul damaa yaakaar ne tey lii yàlla man képp ko nangoo jëfe ndigal bàyyi tere damaa defe ne yàlla man foofu laa koy képp ku nangoo jëfee ndigal bàyyi tere naw loo mu mën a damay def ne yaa ma gën booba sëñ Massamba Diop daal ndaw la nee na ma yéeg ci biir kër gi ci biir sàkket yi cëppeelu ci kees bi nga xam ci la sëñ bi ne nee na mu daal yi nee na xam na ne boobu man doo may def loolu mu daal yéeg lu daal ne ko ko kooku Massamba ne ma ne ko waaw mu ne ma yéeg fii koo xam ne yaa ko wàcc suba tis baa jot ne dafa ma dikkee fekk sëriñ bi mu taxaw ci bunt bi ma ngay jaaf karo bi muy lang ci ndox yi nga xam ne sëriñ Tuubaa ko dimbali waaye koo wat ci suba ci tis baa jot nga dikk fekk karo nga ne lang yaakaar naa bu la dimbaliwul ak bopp ngay sëñ Mamadou Lamine Diop mooy ki nga xam ne sëriñ Tuubaa wóolu woon na ko moom bi mu fii laata jógee dafa bàttale woon ne su ma fi jógee ki mujj ci sama yaram mi la doon Mamadou Lamine Diop nii nga xamne ne boobu maam Thierno ngi fi sëñ Massamba ngi fi ma ci Anta ngi fi Cheikh Ibrahima ngi fi waye def noonu sëñ Mamadou Lamine Diop dara do mujj ci sama yaram. adiya bi barke borom Touba. sëñ Mamadou Lamine na neena na Touba ko daan jangalo xasida ñi nga xamne ne nii moom la ko ñii di jangale nga xamne du def ni man mokkal naa ko rek ndax maa ngi jégalu ci kàddu yi may yëkkati déyal naa ko sëñ Moustapha waaye waxtaan wi déyal yàlla xam na ko ak yonent bi darajay Sëriñ Tuubaa Mbàkke su fekkee ne li may wax dëgg itam yàlla nañ ko yëpp jëriñoo Sëriñ Tuubaa mu bañ koo jëriñoo waxu ma ko jëriñ ngir tiital waxu ma ko ngir dàmm waaye dama ko doon def ngir ànd ak yéen ñu bokk yéenee doo ko bii màggal bi di jubal ak bisu màggal bi tey jàng naa fi 313 si diir yoo xam dama ko koo def addiya boobu ko yéen ñi nga xam ne ñooy taxawal màggal soxna Jaara su fekkee ne dama koo yéene sama bopp benn sikru benn tomb bu xasida bu euh, ma ci jàng yéene ci sama bopp lu bokk sa la ma leen ci yéene yàlla moom fa dee jox ndax ba ma koy nàmpale dama ne mbooleem koo xam ne dafa am yittee jóg jëm suñu màggal soxna jaara gi fii ci Barcelone mën naa ko yàq na mu dem ci àdduna bi fii ci Barcelone la wax ku tëj lu jëm si ak ku amal yéene tee fiwul yàlla mu suñ tubaab wala na nga xasida yi ma def naa ci 313 muy ñetti téeméer ak fukk ak fukk ak ñett ci sëñ bi defal def ko addiya defal ko Sëriñ Tuubaa addiya ngir ñu bokk yàlla na ko Sëriñ ji di ko xool dafa bokkul ndax boo fekkee da ngay jàng xamee yi di ko xool bët yi day liggéey loxo yi day liggéey cër yi nga xam ne moom koy defee di liggéey noonu la sëñ Tuubaa daan jàngaloo am yi sëñ Mamadou Lamine Diop nee na mu di ko ko jàngaloo may jàng xas di nga ba yegg foo xam ne nii borom xam-xam li tax amul solo da ngay booy yër dara da ciy génne waxale maxaari yu uroo ba uróol ba bayam bi lépp dañ koy bëgg a gis nee na nag ba nga xamee ni egg na foofu bëgg a xam uróol bi bayam bi ndiroon na ko daal di taxaw di mu ne na ma yem ci bay boo xam ne xaw maa jàppal ci ne ko sëriñ bi bindee ne na ma nekk fa rek di ko a ko baaxutuwaat di ko baaxutoo ko baaxutuwaat ba mu yàgg sax mu daal dem masam ba xanaa foofu de dafa am lu la dafa am lu fi mën a defar ne Cheikh Ibrahima daal ne ko moom moom mu moo mën a defar Fall Babil Mouridina kenn ko yabula Allah ya ilallah ante ibraya di kamal Lampu Fall Babil Mouridina Allah ilaha illallah kamal Lampu Fall Babil Mouridina jërëjëf góor bu rafet sax te rijaal kon jàng Cheikh Ibrahima dina al kamal wasaddaha xalil jalal ndax ba nga xam ne góor bëgg a yàpp ba tax mu jaaxle woon ci biiru sëriñ bi Cheikh Ibrahima ba ne day dugg xalwa xol kan mooy Cheikh Ibrahima li tax mu takko Serigne Touba té lu julli lu woor ba pare Serigne Touba jegeñal ko boppam na lool jaaxal na ko dugg xalwa muy Cheikh Maam Ayi ba mu génnee ci xalwa dafa daw bindi ak téré ba dañu Cheikh Ibrahima ko tor ci yàlla Cheikh Ibrahima yàkkaw lu góor ñëpp Cheikh Ibrahima xam justal ma jall Cheikh Ibrahima nekkal kamal wa sataq taax lil jalaal yaa yegg ca yàlla dëgg na Ibrahima fa la nga sa ci ci yàkkaat bi ñu rafet wàcc na lu ma saajoo faju na ba xëy na ñibbi aljana wàcc na aljana yi texe Cheikh Ibra dem na wàcc na lu ma saajoo faju na ba aljana wàcc na aljana maanaam maanaam la mu ko waxee ne ko yox téere xaalu biir asal ci loosu góor yàlla yi ca nga teg sa tànk daal di yegg wa maa fii sax bi nga asal sa jiw gi kay kenn gën waaye man sàkk si Ibrahima Fall man de maa doon sikki sàkk Ibrahima Fall waaye damay digle léegi ne man sàkk si Ibrahima Fall ku sikki sàkk ci Ibrahima Fall wa fii tariqatil kamal ak yoonam bu mat bii in lam yatub li sil jalal jéem tuuboo ko ci sunu borom yaraa sabaxatul kër yomal xiyaam kenn mënu mënu laa mbugal bu ndax tariqu boo xëyee ko yoonu Ibrahima Fall mu gën ci yoon kooku yabatu ko kon góor yabatu hmm. waaye nga xool mat bi nga xam ne moom la def ne la Cheikh Ibra nekkul ci kees gi nu nekk ne du may wax ak sëñ bi di jàng xasida yi waaye dana ba may bamtu di bamtu ba yàgg ma ne ma sàmba ma ne ko mbàkke ma ne xanaa foofu dafa am lu ci mën a defar Cheikh Ibra ko tontu ca kees ga ca def ne ko moom moom mu moo mat a defar ak seenu baax sëñ ma sàmba doot ne la su fekkee ne jàgg naa ca bis boobee laa def ndax ku toll ni Cheikh Ibra su ne moo mat a defar keroog su ma defaroo itam tamit boobee laa defaroo ñoom noonu la doon ànd boo gisee ñu indi xibaar bi noonu la ma ñu ànd woon nit daaw wax dara rek nga defee ne déedéet bu waxee dara rek da nga koy xool ngir gawal caa defaroo ndax nee na keroog laa noppee si sàkk ci lenn loo xam ne sëriñ bi xam na ko def nee na lu ma defee sëriñ bi def ko rek aw ma ci lu may sikki sàkk duutuma laaj duutuma lañ bëri duutuma yërëm laacu numa fe tumu pinde no lay jange luma defe tam non lay nango fo mu joxol fo rek lay jub dana mutuma xam lama cey fekk non tamit suñu bëggee defaroo foofa la ñuy dellu ku ci sa morom nekk ci sa kaw tëy lam dale ci sa kaw xamal ne da ngaa am loo war defoo ndax boo ñàkkee kon yeesu dal ci sa kaw bu ci kenn gis sa bopp ba yaakaar ne dara ndax toujours maa koy wax daraay jàmm ku nekk ci biir ba yëg ne dara nga ca ba mu jël yëfam ba xam nooy def kuy béy ci tool jàmm ba yaakaar ne am nga ca dara bu borom tool bi ñëwee dara sa mbéy mi dara rafet bi foo jëm ak mbaa bu dikkee ne la ku la béyloo ci sama tool bi loolu la cee jare sóoraale duñ ci dara lépp sëriñ bee ko yor nañ ko jàppale li nga xam ne moom la yoon na ko Cheikh Ibrahima daan waxee teg leen ci seen loxo ndax liggéey sëñ Bàmba bi lépp bari boo ci barkal la ku ci teg sa loxo mu dem boo ko ci dee ku ci dem mu teg leen ci seen loxo bu bari ko bi bëree ngeen di sa sax wax na ne buy sangu du ko sumb waaye taal na muy rawee moroomam nit bët du ci raw Cheikh raw ñëpp basara ak basira la amal te basara ak basira mën ko nit a mën a am dafa jafeñ lool te ba léegi ñu ngi ci kaw jaww ji wëndeelu am na ba léegi ñu koy amee waaye basara ak basira ba Cheikh Ibrahima amee woon moom amatul ndax sëñ Mor Mbaye Cissé mu baax mi bu nit masaa amee bët yi métti bu ñëwee ci moom bu dikkee ne ko naan Cheikh Rafa Cheikh Rafa ba muy juróom-ñaari yoon mu ne ko taf ci bët yi ne ko demal wér Cheikh Cheikh rek a gisal sëñ Bamba moom loolu daa faje waa nekk wala bët bët bi ñu juróom-ñaari Cheikh Ibrahima lay tukki ci bët yi rek nga la demal wér basira booba nag ak basara ba nit mënatu ko am mooy gisu baatin ak saa yi gisub saayir bi mooy mboolem yi nga xam ne mooy bon boni adduna yi nit war cee teg bëtam yàlla dana ci musa ba yow doo ko doo ko xool doo ko gis xam nga xool ak gis boobu da ngay dem ba bon boni adduna yi yow subat bi ci dem mboolem bon boni baatin yi itam nga dem a dem ba sa bët sa xol du ko du ko mas a gis ku amul xol boo xam ne ni gis na lu bon ak bët boo xam ne gis na lu bon ci ngay mën a amee di gis loolu ñuy wax al alxawaarix di gis ay xabaar foofu la Seex ba tolloo moo tax bu daan gis seen Bàmba gëmmam ci dëgg la daan gis moo tax su sëñ bi daan wax ak moom la wax ak nit ci war mais su may wax ak sëriñ bi seen yaram yoon gaaw des ba sëñ Bàmba bu wax ak man asamaan te suuf si ni mu koy ak dina tax moo dégg wax li tax ak saa bu jubalaa sëriñ Tuubaa yaram bi loof kër yëpp bañ jëm ni Serigne Touba gi yàq na lay gis te jëm ni Serigne Touba dëkk bu koy traité. Serigne Touba moo doon jëmm xam ne su ma saa toog ci biir mbooloo di wax wala mu jaar ci biir ci di dox bu fa kay di nekk du yëngu rab maanaam yu ndaw ndaw nekk mel yu ndaw yi sax bu Serigne Touba naan dox kii kii du mu yëngu yëpp a teg dara du yëngu. bu maanaam di wax ci mbooloo lu ma bari bari di ay soxna ak i gone yu ndaw gone du jooy soxna du wax kenn du wax ñépp ay toog di ko déglu Cheikh Ibrahima xam ne loolu mu mayee ñooñu ban mu leen wax ban ni noppi Cheikh Ibrahima xam foox jaraan bàyyi ko di ko dégg ci noppam moo tax dégg ga du ko mën a leer moom tax riir ma jëmmi Serigne Touba ja doon ragal loo yooyu ban mu ne wàpp bu moom la Cheikh Ibrahima daan gis jëmu ja yaqiinan moo tax saa ah bu ma saa jàkkaarloo Sëñ Tuubaa day cëree day day lool. xam naa loolu ñuy wax benn point bu ndaw bu reetaan loo mbooloo mi ñu def ko te bàyyi te Cheikh Ibrahima lay doon ndax dafa ànd ak sëñ yaaram benn bis ñëw ci weeru koor ci sëriñ bi sëñ son yi bu Mbàkke di ko détti benn keroog la njëkk bi Cheikh Ibrahima ànd ak sëñ yaaram muy muy taw jamonoy taw waxtu tisbaar jëm tàkkusaan ñu ne sëñ bi mu woon Cheikh Ibrahima mu ñëw ànd ak sëñ yaaram lay sëñ yaaram yoroon ko pari sol bu rëy nee na Cheikh Ibrahima jëmm ju neex a wane la nee na dafa rafetoon njool ca kaw nee na mbooloo moo ko fekk rek bu fekkee da ngay xam ne nit ku baax rek nee na boo ko séenee di nga ko xam nee na Cheikh Ibrahima egg fii nii yoon jël sëñ bi nee na sëñ bi wax ak moom ku maandu la nag la sëñ bi doon wax ak moom waxu ko waaye nag sëñ bi wax ak Cheikh Ibrahima ba pare dal yi fekk da doon jàpp bi mu jàppee ba noppi mu teg jàpp mi fi wetam ndax sëñ Tuubaa daawul dóor am jàppam di jàpp ko ko di ko jàppee jàpp moom la def daan naan di guru bi wala yére yi mu ko daan laabloo bu masaan ñëw Cheikh Ibra da koy laal ba pare wañaar ko ba mu kii mu teg ko bala mu koy dugal ci saabu da koy def ci ndox wañaar ko ba mu lépp set mu ko ci ay butéel di ca naan am na soxna sum ko daan muy soxna la

diggalu ko away. jàkk mu ko njàppum sëñ Bamba ko joxee bàmbal mu ko duma ko mën a dara duma ko mën a dara ko andi sam jàpp ah. mu jox ko tuuti egg suuf daal di ak déegu gaaw bii bu ma ko xaaree jant bi soog ma dee ci diggante bi daal di naan jàpp nga ne kon foofu la doon mu ngi bëggu la dara raw ñoom tamit a dara raw nañ góorgóorlu ba xam ne wa yi ak saa yi ak nga xam ne moom la ñuy julli ni ko sëñ Abdoulaye waxee ne jaamu yàlla yëpp a jafe kenn woo ciy def bala moo yegg ca suñu borom dañ koy contrôler asamaan su ne am na malaaka mu koy contrôler bu te dara ñaawee rek ñu delloo si la ku nu delloo si sa kaw si sa kaw musiba dal mu delloo si sa julli si sa kaw musiba dal la say natt asaka noonu ndax gars yi ci bari duñ natt asaka yeneen yi nga def ay màkk gi aw àllaa ji lañ ciy wut ak yeneen yu mën a taw waaye nag nee na lépp loo ci def ci jàmm yàlla boobu boo ko joxee Sëriñ Tuubaa kenn du ko contrôlé ñu xool nag ni Sëriñ Tuubaa fonk woon julli ni mu màggee gars yi ngir yàlla ñu leen di julli waxtu di ko def Sëriñ Tuubaa at yi nañuy woor weeru koor di ko def Sëriñ li mun naa la nga da nga ko def at yi Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ na at yi gis na gis boo xam ne nii te fee sama loxo tuuti bi féetewu suuf nee na mu fàq loxo day fàq nee na koo ni lii addiye di ko jox nga ko addiye moo xam nga tudd ma ci moo xam nga tudd ci rasulullah yi nee na nga tuddee ko baarub addiye ne ko tàllal di ko joxee ci nit nee na bu loxoom fàqut nee na sama loxo tuuti bii laa toll bu ko yëgee bu ko yëg sëñ ba dem nag nee na loo ci gis mu rëy mu baax lu mu rëy rëy rëy te baax lu mu am am njëriñ ne boo ko xamee boo xamul fa mu nekk sëñ Tuubaa fa def yàlla ko borom xam yàlla yàlla doole di ñoo ngi doole jéggalu bu baax a baax di doole di leen tuubal bu baax di ñaan ci dara yooyu sëñ Tuubaa yàlla na sëñ Tuubaa nangul lépp lu mu def yàlla sëñ Tuubaa yi képp tax bu ko dara la yàlla na sëñ di dimbali boo xoolee nag Cheikh Ibrahima mu àggal ci taal bi mu gën a mokkal nem yàlla mu nekk ci yéen yi nga xam ne moom la Cheikh Ibra daan wax ndax ku ma tëjoo ci moom am aaj lu aaju kër yéen la naa ndax yéen nga ko diw nii boo ko yow am mooy bu ñu lëndee ci kuuti di nga ko am nan leen di yéeneeti lu baax dëgg koy taalibe dëggam dañoo bëgg lu baax nag yéeneeti lu baax suñu yéeneeti lu baax daan am lu baax lu waay lu waay bëgg nag